dañu xalaat ni Sénégal bëri na ASC ñu ñu waxtaan ak euh, ONCAV pour set naka la ñu mën a àndee pour que ñoom tamit ñu bokk ci euh, reforestation bi ñu wax leen ni ASC bu jëmbatee garab garab bi nga xam ni euh, mën na ko indil koom garab bi nga xam ni mën na mën na mën na mën na jox nit ci lu ñu lekk ASC boobu dina dina tax Sénégal naat

Euh, fii ak quelque at dina jur ay koko yu bëri ñoom buñ ko jaayee dina leen indil koom-koom koom boobu nag dina tax tamit ñu suqali Sénégal mu am euh, biodiversité mu am garab yi nga xam nit mën nañ ko lekk mën naa joxe beneen exemple xam nga Covid bi bu yàggee nit yi lu ñu lekk dina leen jaaxal ñu ne kon nañu jëmbat ay toolu kër nañu jëmbat ay garab yi nga xam ni dina leen jox lu ñuy lekk donc loolu daal ma kontaan ci trop trop trop trop tey ndax ay tey jii nii lu nga xam war na ko jëmbat garab dafa am solo garab dafa am solo dans l'environnement mais surtout grappe yoy muy wax non grappe yi nga xamné dañ tax ñu dund xam nga so xolé am na ay garab yu nekk fii actuellement ni nivaquine yoy ñu wax non c'est vrai que ça amène l'ombre mais kenn mënu ko lek mais mom néna proportion bi nar def proportion grappe bu nga xamné ne dafay lekk environnement mais aussi di créer emploi mais grappe yi nga xamné aussi mën nañ si dund te loolu moo ñu soxal

ba euh, loolu am mu régler environnement bi création d'emploi lay doon aussi propos mos nañu fi proposer nguur gi bu ñu waxee ne am na coupe abusive de des des forêts on avait proposé que si da ngay dem Kolda ngay dem Sédhiou jëm Ziguinchor proposé woon nañu ñu jël suñu ASC yi ñu nekk des volontaires de l'environnement non seulement dinañu régler loolu mais au-delà de de cela aussi création d'emploi yaakaar naa daal incha allah si ndogal yàlla lu ñu am taane ak moom nii te mouvement nawetaan yëpp d'accord population bi tamit di ko xaar incha allahu rabbi dinañu fexe ba mbir mi mun a am te mu nekk jàmm réew mi daal